non mais kii Diagne mhm. euh, damay wax ne diggante Amina Poté ak euh, Kouthia euh, yaa ngi dégg. Mhm. du loolu du cas. Mhm. oui parce que xam nga lu tax du cas parce que gis nañ leen ay at. jox joxalante bi donto bu ñu waxul sax da ngay gis ay wax yoo xam ne day joxalante seen diggante. mais cas bi normal. loolu lañ waxut ñun. lu xew seen diggante ñoom ñaar. waaw li waral coow li. loolu lañ waxut parce que li waral coow li jaaj naar hmm. nga baal ma dinaa si ñëw tuuti. ñëwal parce que benn boite comme benn euh, benn benn liggéeyukaay. Hmm. boo xam ne dafa am ñetti njiit est-ce que mun na nekk. c'est impossible. xam nga munul nekk munul nekk. parce que tamit damay wax rek li ma gis parce que da ngay gis ko xam ne day yéeg gërëm biraan. am ku yéeg gërëm njaga hmm. am ku yéeg gërëm buuba am ku yéeg gërëm euh, kii buuba euh, gërëm euh, naka la Ibu Ndour gërëm Ibu am ku yéeg dañuy gërëm ba gërëm meer bi hmm. gërëm maire nday soxna mbuub hmm. yaa ngi dégg léegi ñun léegi bu fekkoon tane ñii ñëw di liggéey si bu fekkoon nit ñii ñëw di liggéey si benn gërëm dafa nekk est-ce que coow li dina am ba pare est tamit est-ce que def ngeen beneen jàngat aussi ñii rek ñoo wax mais est-ce que amul yeneen problème foofu. Hmm. non dama ne su ma ñëwee Feeling Dakar tey man. Hmm. Jimbori waaw ma ñëw su madam Diop am ñoo xam ne dañuy gërëm madame Diop am ñuy gërëm bàmba am ñuy gërëm abdu Khadre yaa ngi dégg léegi est-ce que ñaata groupe ñoo fa nekk. Hmm. su ñu ñëwoon tey nga nga bëgg a gërëm kii bàyyi ñu ñoom ñu wan ni la fii benn njiit moo fi am est-ce que ñu tàqalikoo dina am ba xuloo di am ba pare benn defukaay lañ yor ku def day abal sa moroom mu ñëw def ñaata defukaay lañ yor. Mhm. micro yi ñaari micro. Mhm. caméra yi ñaata caméra la. bari yi ndax ñaata tele moo fa nekk benn télé moo am. Mhm. bu Amina defee ba pare day wàcc may Kouthia mu def est xam nga Amina sama rakk la man. way ah su dee faral ma faral Amina Amina sama jigéen la muy leer nañ mais li ma lay wax déglu ko. acca yow lay déglu ñëw yaa ngi dégg. Mhm. mais dama ne la su fekkoon ndax dafa am ñaari teefem dafa am benn TFM rek benn TFM moo am. léegi lan moo tax nit yi nekk fa doon fukki TFM. lu waral loolu. non dama ni non loolu kay da leen koy laaj. lu waral gërëmu njaga kese bàyyi buuba lu waral gërëmu buuba kese nga bàyyi njaga lu waral gërëmu yuusu kese nga bàyyi njaga lu waral gërëmu biraan affaire yooyu xoola ku yéeg ak ku muy gërëm est-ce que du ku nekk la nga sekkal moom nga war a gërëm déedéet xam nga télé moo doxewul noonu man dama jàpp ni mhm. euh, télé bi si boppam yaa ngi dégg mhm. su tane ne dañoo fexe ba mu am benn njiit rek yaa ngi dégg kenn dong di jël ñi ci des xam nga ku ñëw kenn jël la parce que télé yi defe naa lool moo fa am. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. kon defe naa ni diggante Amina Poté ak ak Kouthia duñ fi nekk di werante yaa ngi dégg ba lii ñu ciy yegg si ma waxaat la beneen wax. Mm-hmm. ma dem si beneen deuxième affaire bi fa nekkaat encore. lan la. mooy xanaa am loo ñun nii ñëpp est-ce que jaaj euh, naa. waaw est que xam nga ni bàmmeelu yonent bi demoon na bay raaf bay. raaf raaf. bay raaf. waaw waaw parce que bi mu génnee àdduna dafa ne. Hmm. bu leen fi nekk di defari bàmmeel fexe leen ngeen jël mission bi ngeen tasaare ko ci àdduna bi. Hmm. parce que yónent bi dafa mujjee yàlla ne ko dama lay yónni yónni sa xeet yi. Hmm. yaa ngi dégg. kon gel bi gel bi tey ñun ñi ñëpp nan lañ war a taxawee ci diggante Kouthia nan lañ war a taxawee ci diggante Viviane nan lañ war nan lañ war a taxawee ci diggante Amina Poté. non nan lañ ci war a taxawee parce que bërki démb ba léegi maa ngi leen dégg nag ku nekk di wax yaa ngi dégg mhm. mais ab jullit ak moroomu jullitam dafa am lu leen di boole am lu leen di tàqale te problème ndax bu ñëwee ci Sénégal ñun dañoo war a arranger problème bi wala dañoo war a wan ñi nga xam ne dalu leen bur beneen yoon bu mu leen dalati mhm. wala dañoo war a ñëw yokk loolu mais jàngoro boo ko weerul du koy weer mais fu xalaat juumee xalaat a jàpp ni kon kii di Samba Sine ñu gën ko xam ci Kouthia dafa juum ci audio yi fuité. déedéet Amina aussi dafa juum ci génn gi ma wax la dara sàmba Sine est-ce que xam nga yabul Amina Poté. ah mais boo yabuloon dina ko. audio xaaral tuuti ma wax la xoola yabul Amina Poté. Mm-hmm. yabul Viviane. Mm-hmm. yabul Ndourène yabuleen. xam nga lu tax yabuleen. waaw parce que li mu wax noonu ci audio yi ñemewul taxawal jaxaran wax leen kan moo publier audio yi te ki publier audio yi dafa am lu tax mu publier ko. Mhm. ok da am ku nekk ci ginnaaw. publier audio yi waaw kay si kanam. dama bëgg nag après ci kanam. ñu yaatal loolu ñu yaatal kooku lan moo tax mu publier ko ak audio yi ñaata temps la def ci moom. jàpp nga ni. kilifa lu sa xam nga man lu sàmba si di def. Hmm. loolu li jëndiw ma ko de. Hmm. lu Amina Poté di def. Hmm. ko kooku ba tey Amina jigéen la rek. Viviane aussi jigéen la rek. mais tey dañu war a waxtaan ci loolu ba bu ëllëgee ñun ñu nand loolu pour mu bañ a ci kanam dinañ waxtaan bu la neexee dinañ waxtaan ci loolu ma wax la kenn ku ci nekk. nan la duggee ci dossier bi. d'accord bëgg naa ci kanam tuuti nga wax ma kenn ku nekk naka la duggee ci dossier bi Ngoné yow it na nga gisee euh, ka Amina Poté ak Samba Sine Kouthia euh, Amina démb mu génn wax ni Kouthia da ko yàgg a di ko def ay proposition di ko invité euh, pour pour pour yóbbu ko ci ay copain di ko pour génn ak moom moom Amina mu jàpp ni Kouthia daf ko daf ko bëggoon utiliser aw ci kawam moo tax mu génn moom démb Amina Poté dal sax bu baax ci Kouthia ba am na yoo xam ne sax il faut ñu wax en deuxième partie parce que moom Amina jot na traité Kouthia que ni moom moo moom moo moom moom moo faat nga xam ne moom moo di Ndiaye TFM naka démb sorti Amina Poté waaw ni ma ni ñu gisee démb li nga xam ne moom mooy sorti Amina Poté nekk na loo xam ne lu doy waar la mhm. lu yéeme yéeme yéeme yéeme macha allah koy li ñuy wax rek nit ki mën na laa tooñ mhm. nga dem ba ci biir te mbir mi mën naa dem bay nduróog li nga xam ne moom mooy tooñaat bi ndax Kouthia li mu def kenn rafet lu ko ndax man démb sax comprendre moom dama defoon na mbir mi sax ci Amina Poté kese la yem mhm. mais mbir mi nekk te yamul sax ci digganteem ak Amina Poté ba mi nga xam ne ndem si yàlla si génn na àdduna mm-hmm. duggaat ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak yeneen i audio ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne dañ cee dégg ci mm-hmm. affaire liggéeyaate mm-hmm. liggéey naa diw nangam nangam liggéey yoo xam ne ne dafa nekk loo xam ne lu yéeme la lu doy waar la mais Amina côté man benn côté dama ne dafa juum kan moo juum Amina Amina parce que conférence de presse bi da ngeen ab da ngeen bokk lii de travail te moom moo la fa yóbbu woon loolu bu amee tey dafa waroon a gisanteeg ñi nga xam ne ñoom ñooy njiitu kër génnee audio yi man nit du wax lu ñaaw ma génne ko di ko wili pande mais waxuñu waa kër ga moom Amina la wax mais dama la Amina law Amina moom la ñu wax mais Amina am na kilifa fi muy liggéeyee Kouthia moo ko yóbbu TFM mais moomu fa yàlla mayul kenn mais amee te yàlla tey ji sa wërsëg bii mu indi am na fu la jaare la ba ma madame Diop indi la fi kon ngoone yow bu ñu xoon ci yow lu ñaaw da nga ñëw fii ci madame Diop wala ci Bamba ma liggéey dara lu ma naqari wax hmm. bu ma fa gisee lu ma naqari avant may génn di def conférence de presse damay wootanteeg dëggal audio bi ñi nga xam ne ñoom laay liggéeyandool ma waxtaan ci ak ñoom mais jàppoon dafa personnel moo tax moom Amina def ko lu personnel nekkul nekkul parce que moom la Samba si waxal moo tax moom jarul muy jël ci télé ba di wax ak ñoom non non nekku lu personnel de parce que affaire bi engagé wul Amina kase parce que Amina jigéen la nit dañ ko war a yërëm parce que Amina dafa jur ay doom waa ko dafa ñaaw nga yor ay doom mhm. ñu mën a taxaw ay wax yu ñaaw wax yu salte ay diw ca baar laa ko xamee fii laa ko xamee boo xamee nit ki ca baar ba mais yéen ñaar fa tase mhm. baar kay ku fi ne fekk naa fa nit kon yow loo doon ca baar ba ba fekk mais damaa bëggul man nit di ma wax lu ñaaw di ma wax lu salte ma génn di ko waxaat ku ci mel ne Viviane tey ji Viviane du reen la bokk am na fa doom te Viviane bu demoon bay def lu bon di lees beenante est-ce que dina ko dina ko assister ak doomam. loolu laa leen mais bu Kouthia amee audace su dem ba. ko yàq ci audio loolu dafa Kouthia bu demoon audace audace di wax loolu Amina Poté digganteem ak Kouthia ku ne xam na lu mu demee mais conférence de presse bi dafa waroon am lu ko jiitu. mooy lan parce que lu ko jiitu mooy lan dañoo am bërëbu liggéeyukaay bu ñu ne. bërëbu liggéeykaay boobu am na kilifa TFM kan mooy seen kilifa moom moo ko fa indi woon fexe na ko def ko ay façon def ko ay petit façon grand manière ba Amina dem Amina jigéen bu baax la koo xam ne kenn mësu koo dégg ci détail wala kenn mësu koo dégg ci lu ñaaw. mais moom Amina yàgg na wax que ni yii bu jotaan am da ciy waxtaane kilifa yi foofu mais du am suivi. du am suivi léegi nag comme bii am na te moom mère de famille dafa am famille. Mm. Euh, il était temps mu génn moom waxal boppam. moo tax jamul bon wax ak ak kilifa yi nekk. waxal boppam lan la waxal boppam. diw ah. nee diw nee na ma lesbienne la. défendre na boppam de. mais dama lay laaj Amina est-ce que moom kese la ñu waxal ana Viviane ana Pape Cheikh Diallo mi ngi ci wax ji Ndiaye moom dem na Viviane nañ fi ko lefee mi ngi ci ojo yi. ñu ci yow ñun ñëpp. déggoo li ma la xam nga ñëpp a ngi ci audio yi mais damaa bëgg gis nga nit ki gis nga boo siwee. Hmm. tey ngoone bu doxoon fii daanu baa xam nga ne kenn du ko tudd ku boot bukki nag xaj mbaw la. gëm nga ni ku caa yooyu loo gëm yow peut-être nga xalaat nii eh, lii jikko non non promotion canapé ci xeetu liggéey yëpp la am foo dem am na mais yow jigéen bi yow yaay am sa fulla am sa fayda am sa personalité ba góor du la xool sax ba jël yéene lool di la ko wala bu la ko waxee benn yoon du ñaar loolu fépp la am amul góor bu dul gis jigéen nopp amul góor bu bëggul jigéen. Hmm. maîtrise rek ak tolérance ak jigéen yow yaay am sa fulla am sa fayda am sa personnalité ba góor du la xool sax ba di la ñemee wax yenn wala bu la ko waxee benn du ñaar. Mm-hmm. loolu dafa am am na góor ñoo xam ne tey ji bu ñu la gisee ci place indi